dañ koy respecté nous irons à des élections alors Cheikh bi waa PDS ñi nga junj léegi ñoom it ñi ngi ci loolu ñoom it fu mu ne dañoo mel ba futu ndax ginnaaw ba ñu invalidé li nga xamante ni moom moo di candidature euh, kii di Karim Meïssa Wade mu mel ni kon euh, conseil bi jox na dëgg ci allégation yi nga xamante ni moom Thierno Alassane Sall defoon na ko ci fan yee ñu weesu ñoom nag nan croisé wuñu seen i yoxo nee nañu dinañu dem ubbi li nga xamante moo di ab enquête parlementaire tey déposé nañ ko à l'Assemblée nationale ñu xam nga Karim moom ñu ko éliminer moom man gëm naa ni en tout cas dossier bi ñu ko éliminer moom conseil bi la waaye li génnee li tax ñu éliminé ko moom gëm naa ni loxo ñu nekk ci pouvoir bi daf cee bokk. mais ñoom loolu lañ gëm. xam nga lu tax France bi mu defee communiqué bi ñu bari dañ foog ñu dafa sauver Karim waaye da ko saraxe. mu ko dañ doon dote ci am na ko amu ko ñàkk na ko ñàkk ko mu publier na ñàkk na ko bis nangam wane ni ba muy déposé. boobu ñàkk ko boobu ñàkk ko. donc kan moo am intérêt à barrer la route à la nu mu tudd au candidat Karim Wade xam ah, Karim li France la maanaam Karim retour famille Wade au pouvoir ni ko France di craindre de la même manière lay craindre retour famille Kadhafi au pouvoir maanaam ñaar ñu doon ngor wala dem ba ci yàgg nga war ko. amuñ intérêt ñu ñëwaat parce que baayam fi nguur gi li ko France lebal baaxul donc France moom amul intérêt Karim Wade de revenir aux affaires Karim Wade nag am na moment historique revenir ci seen politique bi passer du statut à un exile ñëw ci soit deuxième wala troisième personnalité de l'État xam nga nan def benn jonction ak passé fa ñi ñu àndal jël seen égo surdimensionné tegee de côté Karim mën na nekk deuxième personnalité de l' état de en un clin en une fraction de seconde. yaakaar nga ni ko mel ni Kame bu ko accepté wul moo fay jaay paañ xam nga lu tax amul choix bi bu ci jàppee dana dem bu ci jàppul dana dem moom moo am intérêt jàpp ci. te 2024 virage la boo xam ne bu ko rëccee Karim boo moytu moor politique mais sànq yaa ngi naan euh, pouvoir bi peut ñoom ñoo gën a am intérêt ci Barry Lahut ak Karim Wade mais foofu àtte opposition bi à rappeler que ni ki nga xamante moom moo njëkk soulever cette affaire euh, ñaari yoon à deux reprises ay opposants la à savoir maître Moussa ak ki nga xamante moom moo di Thierno Alassane Sall moo nekk seen ginnaaw xam nga ñoom Karim bu seen challenger. Thierno Alassane Sall Karim du nawleem ci politique xëccoo wuñu dara. mais nee nañ ñoom ñaar seen coow yàgg na de. waaw xuloo la wax. xam nga xuloo xuloo bokkut ak maam challenger politique bokkul lu ñuy. xëccoo ñoom jàpp mooy ku mel ni Thierno Alassane Sall mënut a supporter Karim te loolu dafa yàgg. mais Thierno Alassane kan moo ko bëmax ci guerre bi nii loolu laaj la maître Moussa Diop kan moo xëy wis jox ko document yi wala kan moo xëy bis na ko génnal wax. soo ne Thierno Alassane ko bëmax ci xeex bi ci lan ci lan ngay référé wu. bëgg wax ne waa ñu. que amul luñ ngi ci ginnaaw. est-ce que amul ko soufflé. comme lan. mu bëri na. mun nañ ko suufle vrai état civil bu Karim Wade. yooyu yëpp mën na ne ay laaj la mun na mën moom it ses propres ci la kër. je ne crois trop parce que amul intérêt. toog nii rek jug yëkkati benn dossier te homme politique lu muy def rek homme politique bëriwul lu muy def te yàlla tax. te fa mu ko yëkkatee la nag. waaw fi mu ko yëkkatee moo tax man la est-ce que amul leneen lu nekk ci ginnaaw. en tout cas daal Karim am na chance maa ngi gis sax ci communiqué bi nga xamante ne El defan defoon na ko moom jàpp nañ ni opposant war ta xeex moroom opposant man daal li ma la wax daal mooy xaw ñu bëri am na même avis bi mais daal li ma gëm mooy c'est pas fait fi sabili laa doon defuñ ko fi sabili laa doon am na leneen am na yeneen motivation derrière léegi nag Karim Wade moom mooy xool am na une occasion de prendre sa revanche sur beaucoup de de revenir dans son pays bokkaat ci jeu politique bi bu ko saisiree baax na bu ko saisiree moo fa jaay pañ en tout cas daal ñoom kenn du ci wax ba ñu reporter élection yi benn beneen bi kenn du ci wax ba sénégalais yi wàcc xeexal leen maa ngi leen dégg ñu naan résistance ak yu kenn xamut man ay ree sax dafa maa yàpp sénégalais yi nee nañ leen ñun xeexuñu élection lañ jëm kuy xeex nga xeexal sa bopp. mooy liñ doon wax rek. ils ont appelé à une à une mobilisation collective de tous les républicains. fu mu ne nii da ñoom dafa mel ni fu mu ne ñi ngi doog xam solo yi <laughs> seen i naataango yi ñu leen di woo ñoom ñëpp ci booloo léegi yeneen républicain yi bi ñuy woote ñoom fuñ newoon xam nga PDS waxoon naa la ko fii li ngi leen di dégg ci mbirum Karim Wade moo ëpp li ngi leen dégg ci mbirum askan xam nga ni yaa ngi leen di dégg ils sont mobilisés ah lan moo tax dafa dafa laal mbiru Karim PDS bu laalul mbiru Karim doo ko dégg. mais Cheikh bi aussi ab élection yi ñoo jëm parti bu yàgg existé bu mel ni comme PDS bokk ca lu ni mel aussi tamit ñu bëri sóoruñu ko woon de d'autant plus que bañ jógee ci dialogue bi ñenn ñuy bëri euh, gis-gis bi ñu amoon moo di euh, kii di Karim ak euh, kii di xalifa yi nga xam na nga woon nañu bokk ci dialogue bi moom ñoom seen mbir féete na boor dañuy bokk. non ñu demoon ca dialogue bi ñoom sont les plus grands perdants nu mu tudd de maanaam de ces dix dernières années. la taxoon ñu dem amul ci benn buñ jot Khalifa la taxoon mu dem mooy naa bokk rek dana bokk Ousmane Sonko du bokk du am candidat électoral mun naa ko tibb rëccu na ko Karim Wade la taxoon mu bokk mooy naa dem danaa bokk rëccu na ko. léegi ñaar rek a mën a ne avenir am ci wàllu ñaar rek a mën yi nga xamante ni bokkuñu a ak xam nga élection yi. soo xoolee en réalité ñaari pole principal yi dessiné na ba pare. ñaari pôle principal fi nekk. Macky Sall ak ñem àndal. Sonko ak ñem àndal. ñaar ñoon ñooy ñaari pôle principal yi ñooy première force politique yi léegi xam nga lan la ñuy seeti ci élection yi le faiseur de roi wala les faiseurs de roi faiseur de roi bi mën na nekk Karim Wade. mën na nekk une coalition mën na nekk parti politique ça dépend PDS mën na nekk faiseur de roi ñëw an dem allié ak a ak ñoom àndal PDS mën na sottil ku mel ni Déthié Fall Déthié Fall nekk faiseur de roi PDS mën na sottil ku mel ni Boubacar Camara mu nekk faiseur de roi profil yooyu foofu la seen entrée wala seen existence ci échiquier bi di amee solo. mais mënuñu prévoir seen seen alliance ak ak ñi nga xamante ne ñoo nekk au pouvoir. non ko yow nee nga waa pouvoir la éliminé te yow nee nga yow li nga pouvoir la ko teg dee cohérent nañ en tout cas PDS ànd ak pouvoir moom mooy seen suicide politique non seulement duñ falu et ils seront sanctionnés seeni propres militants ñooy leen di voté contre ñoom boobu moom fin wu. fin politique gu njabootu Ablaye Wade gi lay nekk su boobaa. d'accord mais euh, euh façon euh, Cheikh bi lu nu mel moom nga gën a yëkkati sa chaise toogukaay bi donc euh, à rappeler que ni nag. xam nga ni euh, fan yi am nañ partenaire yu yees yi nga xamante ni ñoom moom moo di seen jotaay muy eau aquaterra mu ngi ni moom ngeen gis nii donc nag euh, muy ndox bu sel te neex euh, naan ndox nag moom mel ni zam-zam donc nag di leen ko recommander tamit également donc ñu li nga xamante ni moom moo ci jotaay bi gën a waxtaan ci li nga xamante ni moo di ponk yi li nga xamante ni moom moo di actualité bi lépp rek dëgg ma li nga xamante moom moo di présidentielle présidentielle yu 2024 xam ngeen ni nag depuis lors euh, ginnaaw bi ñu publier li nga xamante ni moo ba tey euh, ñu ñu leen koy toppal lépp lu nga xamante ni ruuse ci ci xibaar aussi ñu ngi koy càmbar ci suñu ay jotaay tey nag euh, tey si jotaay bi lu ci bëri ci loolu la ñuy càmbar mais Cheikh Ousmane bu ñu jugee ci cadre ñi nga xamante ni ñoom ñoo di parti démocratique sénégalais c'est-à-dire daataa daaneel foofu sax yow waxagoo ma li nga xamante ni seen gis ci seen ëllëg a doon nee naa la première force maanaam pôle bu mag ci opposition bi mooy Sonko ñi mu àndal mbaa ñu sottil ku mel ni profil yi nga xam ni jàll nañ ku mel ni Déthié Fall wala Boubacar Camara. Déthié Fall fan yii bëri na ay alliés tam. waaw profilam loolu mooy loolu mooy forum maanaam c'est une personne qui peut maanaam qui peut large pour mu trouver consensus pour ànd maanaam du jafe. yaa ngi comprendre loolu moo ko mun a sauver donc loolu tamit mooy atome en politique loolu mun na ko permettre mu dajale alliés yu bëri wala mu dajale coalition yu bëri par exemple les recalés yii nii bëri nag ñoo xam ne mën nañu fekki moom sa candidature def benn bloc autour de lui à ce moment là Déthié peut devenir faiseur de roi même chose tamit pour Boubacar Camara seen profil ñoom chance boobu la ñu am. doon xool ci ñi nga xamante ni moo di parmi les vingt candidats ndax jàpp nga ni tey jii kon ku mel ni Diomaye Faye moom moo gën a nekk à leur portée que yeneen yi. bon Diomaye Faye moom. parce que bu ñu demee ba fu mu nekk nii jongante bi daanaka ñaari candidat jamono jële ñoom ñoo ci gën a fës. muy Diomaye Faye ak kii di Ba. waaw ñoom de bu dee moom bu dee muus nañ mën politique. Diomaye la ñuy jàppale. xaw nag bu dee leneen moo leen motive waaye bu dee mën nañ politique dëgg-dëgg Diomaye la ñuy jàppale. Jomaay fay chance yi Ousmane Sonko amoon pour nekk président presque les mêmes chances la Jomaay am pour nekk président xam nga Ousmane problème boobu la amoon mooy bu joxoñee ki muy joxoñ ndax dana renvoyer à Ousmane comme ak dana motiver nit ñi ak intention de vote bi dana demee comme bu doon Ousmane la Ousmane da ko réussir ci Jomaay moo tax Jomaay pour mu falu moo gën a ja maanaam fi mu toll Jomaay gën a jege nguur gi képp ku nekk candidat fi mu toll donc PDS bu yeewoo dëgg-dëgg bëgg reveniraat bëgg jot seen cër bokkaat ah après deux mille vingt quatre dafay dem fekk ji Pastef ci seen coalition bi jàppale leen. mais boobaa mooy gën a rey seen bopp de ndax dootuñu exister. ci sur le plan politique non dañuy exister ñu demee sey ci ab ci. ci non sey yow da nga dem jàppale ja entre jàppale ki. dana jege falu ak jàppale koo xam ne moo gën a mooy jege falo ban mooy seen intérêt parce que bu ñu sottee kenn kooku day dem sotti laa jeex na bu ñu jàppalee tey jomaay jomaay falu mais PDS dafay ñaar ci appareil d'état bokkaat Karim Wade ñibbisi ci dëkk bi di doxal bokk ci ñiy doxal après 2024 projeté wu ci élection député yi parce que nu mu tudd assemblée bi dañ koy tas pourquoi pas mun na nekk sax le président de l' assemblée. mais ñu taxaw ci nga xam deuxième léegi nag jugi ci. un opposant exilé ñëw nekk deuxième personnalité de l'État loolu taf taf la de. loolu amul lu ko gën a gaaw moo di candidature Diomaye c'est important ginnaaw ba ñu ba ñu bi ñu bi ñu euh, dàqee bu bu Ousmane Sonko a rappelé que ni nag waa Pastef li ñu euh, yàgg euh, prôné moo di amuñu plan B amuñu plan C benn plan la ñu am mooy ki nga xamante ni moo di Ousmane.